mbay moo yën anamu li ma xamal nit ki du ma ko wax kuñ fi suturaaleeg nga teg ne moo la moom waaw kenn du wëlis si télé eh, eh, télé kenn du ci wëlis ay kilifa ñoo lay seetaan ah boo nag booy yow li ma la xamal boog ba xaar ba nga pare xamaloo ma dara <laughs> yow xaaral ma pare si yow yow yow maa la jàpp ina ina wax naa ko ba pare ina kii nobu la faale wala ina jaawara wax naa ci ba pare tamit mbay wax naa ci ina ba pare kay wala asmen lay <laughs> jël mbay rangel non dimbali ma rangel mbay tegal journal bi wax naa ci ba pare te nga ñëw ci produit yi yow mbay dinaa wax ñu changé la de asmen <laughs> asmen yow asu mbay nga naan asu mbeen maaxalla yow da ngay jaawla ak ak mbay rangel li ma la xamal mu la ko waxee tey fii ngay jaaree demande d'émission bàyyi bi wëlis kenn du wëlis ci télé poulet aram 3 lion <laughs> eh, aram 3 lion yàpp bii nag xoolal bii nag temps yi moo yëngal dëkk yi arom yi nekkoon ci réew mi yëpp daw nañu ndax bii emballage bu rafet goût bu neex ba pare nag amul fen man xam naa la. lu amee ba tey. Eh, eh. fajar damay seekaru. restaurant bee nga xam ne ñoo gën a yombale te plat 250 te neexul bii boo fa yóbbu day mel ne plat téeméer da koy neexal. <laughs> jam premier jour bi Samba dafa deewoon war a deewul. deewoon na léegi lan nga gis nii. normal mu ngi ñor. ak tey at gi yokk 500 yi teew. strong chèque jàppal loolu. te dégg na waaw te yi dañ koy yokk. mbay. loo naan benn boo naan. xoolal cinq cinq ans yokk nañ ci cinq ans. ba pare sa bët day weex. sa bët day weex euh, ki banaana bi la. bii corossol bi la vanille bi la. man léegi chaque jour cere la. xam nga tax banaana bi gars yi ko doublé. parce que chaque fois moom la nit ñi bëgg non seulement lépp nekk si biir da koy renforcer vitamine. Ah, man kay bàyyi naa bàyyi naa léegi banaana laay dal. ah kay Mbaye. wuy dee ma jege. sooy wax ci kaw muy leer di neex nit ñi dañ koy dégg. li ma la xamal yëpp démb ko doon weer. <laughs> wuy ma sa warga yi ba tey dafa manqué. waaw ah, wax naa la ko mbay rangel rek ma wax la li xew. am léegi. moutarde bi la moutarde baa ko. kaay ma dee la yow. rangel moutarde baara muso da ngay dof dof lu rek li nga def ci kër gi yëpp naa ko laaj bi la. gaawal gaawal yow kay moom xam naa da ngay paral jël yoonu mbuur bi sa yaa yàkkamte na la de tey loo ko yooyee mooy lii mooy lan da taxawal loo yàkkamti kaani baa ngi nii diwtiir baa ngi nii nokkos baa ngi nii dañ ko teg li ma la wax kay xam nga ne moom tey ngay dee kaani baa ngi nii encore nokkos bi voilà léegi mbay kaay xam nga yi ñoo sponsor yi sànq dama wax na ma chips bi la ñoo ana chips bi surtout mi ngi si mi ngi si mi mu ngi kaw. waaw ana am nañu si kii américain yi ah, loolu yëpp naa wax naa la ko. waaw d' accord loolu ah, man dootuma liggéeyee ak yow. Mbaye li ma lay dee américain la ko. bàyyi wax ji ma yow. waaw d' accord d' accord kaay ma xamal la benn li may dee ñëpp temps yi ñu may laaj Mbaye loo koy dee ba mu normal Mbaye fecc tur da koy dee rek mu daw sama yoon nekk si tey tey damay fecc tey naa fecc yow. lu xew yow. loo ma xaw da ngaa teg ne chaque jour sañse ah chaque jour yow yow liggéey si woo un mois yoo xamante un mois yu mekk manqué ñaari fan yoo xamante liggéey si woo ah commencé liggéey sañse premier jour sañse te ay dara gan ay ay machinerie su seer a seer a ngañ dem ba coiffeur moo ko jox kii wat kii wat Balla Gaye dëkk ci géejawaay mo baal waay ngañ fu muy jëlee lii combat kañ la gëj a am. Eh, eh, yow la kañ kañ la gëj a combat. wala Balla ngañ dem waaw yow ngañ dem ba fu muy jëlee fu muy fu ku muy ah, ñawale yow ngañ di wat bay wat ay Aliou Sall ak ay Malick Gakou eh, watul kenn amul njëgu lii lii xam nga lan la sa yëre bi li mu seere yow lii Youssou sax sololdu ko lu xew kon patron kër gi sax sololdu ko a solu ko waaw lu xew Mara Dieng solu ko yow lu xew kon ah? du <laughs> eh, ma xam du man man gëj naa <laughs> mag dañ koy suturaal. <laughs> kon mën nañ ko jiiñ ah? yow la. man la. Pape Samba ah damaa tiit Pape Samba du dëgg. Pape Samba kon mën nañ ko ji Pape Samba day wax fii léegi buur damay woo Pape bu ñëw billaahi yow la sa sañse yi da nga man damaa sañse ah ma xamal la rek chaque jour nga may nga may weeral si kër gi ah, ah? li nga def kër googu danaa teg ne kii kii kii sips bi ku ko fi indi sips bi ku ko fi indi ah. Eh, waaye yow lu tax ñu feeñ. waaye jeex na jeex na jeex na. allez. <laughs> séeri <laughs> ku ma yëgalal yëgalal ku ma yëgalal ci kaw seet kii mbay la ah bàyyi siise doomu de ale xool mama jéy jéy ku ma yëgalal yëgalal ku ma yëgalal ku ci kaw seet kii mbay la